Ousmane ko moom du wax jàmm boo xoolee conférence de presse bi mujj moom sawara rek mooy génn ci gémmiñ gi ay ay ay xëccoo xëccoo xeex dóor. ñu baal ma nag waaye naafeq gi dafa war a jeex ndax Sénégal dañuy toog ñoom ñëpp gisudul dëgg ki ñuy woowee buur di ko def kenn du wax waaye ñi muy ñi ko bëgg a dal seen kaw bu ñu jógee ñu ne Sénégal jàmm lañu xam kii nitu fitna la nangam nangam. kan moomu mën a ne mus na gis. waa Pastef wala waa opposition dal ci kaw waa kër Macky Sall fekk leen ñuy meeting ñu dal seen kaw wala fekk leen ñuy def seen karawaat ñu dal seen kaw wala wala wala kan moo ko fi mën a génne amut. nañu bàyyi ngeen baal ma àq naa fekk gi ne Sénégal. wax ñu lu tax Ousmane Sonko ak dal ak jàmm duy faral di génn ci gémmiñam yàlla xam na ni lii fi am yëpp su doon am na benn bu jógee ci opposition benn bu jógee ci Ousmane Sonko kon dootuma xaj ci dëkk bi. dootuma fi xaj mais lan moo waral nag Sénégal bu nit yoree nguur lu ko neex mu def te kenn du ko wax. nit ñi daal dañoo war a mel ni rek kii soo jàppee Khalifa Sall lem dem tëj ba mu neex la nga ne bon selon mon bon vouloir bàyyi naa jàpp Karim tëj ba mu neex la Guy Marius Sagna Adama Gueye yow sa rakk bi nga xam ne tudd nañ ko ci 6000 milliards am ci ay firnde yu leer balaa may dee mu mu woo procureur mu naan day day day ouvrir une enquête ay yëfu tappale yoo xam ne kenn xamul lu mu doon. lan moo war a ñu jàpp ni fii Afrique rawatina Sénégal ku nekk opposition rek yow danga war a nekk benn souffre-douleur mooy dañuy sax soo nee opposant la ah waajal la di nga dem kaso lan moo ko waral. quand j'ai demandé quand j'ai dit à mon père que j'allais créer un parti il m'a posé des questions est-ce que tu as peur de la, de la mort je lui ai dit non. tu as peur la prison je lui ai dit non il xanaa tubaab yi ñoo ñu gën a bëgg seen bopp. tubaab nit mën a opposé subaak ngoon et cetera mu am ay règles démocratiques te kenn du toog naan kii dañ ko war a tëj kaso Sénégal boo ne opposant la rek li ñuy njëkk a xalaat ah mbaa waajal nga sa bopp ah dinañ la dóor de ah dinañ la yóbbu kaso de pourquoi opposition crime la wala lan la. moom def ñoo gën Macky Sall au nom de quoi mu yaakaar ni parce que fal nañ ko rek ku mu neex mu tëj et puis kenn du réagir on va réagir. ñun duñu nitu fitna suñ doon nitu fitna. keroog ci mois de mars bi xam ngeen ni kon heure bi demee na neneen. de ces événements qui sont de mon point de vue en matière politique les événements les plus graves. post-indépendance post-indépendance. parce que quand la manière dont ça s'est traduit dans nos institutions d'abord. Mm. vous savez <laughs> à un moment donné je pense que si on ne faisait pas attention il y avait une possibilité de basculement même de l'institution suprême. Mm. on n'a jamais atteint ce niveau. le pouvoir pouvait basculer. ndax moom bu muy dem làqatu ci rolalam ñi metul génn kilifa yi buñ ñu nee lii lañ leen sant defee nañ ko noonu nitu fitna du def loolu. dafa fekk ñu nekk ñu njëkk a mën a jàmmarloog Macky Sall ak ay injustice ndax def na ko ñeneen ak ñeneen peut-être conditions yi dajewul woon pour ñooñu mën a jàmmarloog moom. jaay bu Sonko jooyoon. cey bu sonkoon euh, euh, euh, taxawoon lox un seul instant bu loxoon dee na il n'a pas tremblé il n'a pas tremblé il a été téméraire te man loolu laa gëm ci un leader Macky Sall koy xeexe moom da nga koy ñeme képp ku ko ragal dee nga loolu leer laa lay wax te loolu duñ ci teggi suñu tànk tey duñ ci teggi suñu tànk ëllëg dama ko wax mu leer nañ duñu dóor kenn duñu yebal kenn fen waaye dootuñu nangu ku yor ay gànnaayam di ñu dóor. ay nit a ngi jël ay ngànnaay. pour wan nit ñi ne ñun ko àndul ak ñun danañ la def nii danañ la def laa. ñaari yoon a ngi nii ñu may ñu attaqué sama cortège. Sall kan kan la ci ci ci loolu noonu. nguur gi la waa nguur gi ñoo ko def amul keneen kandidaa bi may jonkantal moo ko def ak i ñoñam. ok amul weneen. xam naa ne du ñàkk ñu defaat ko waaye ñun jël nañ suñu matukaay ci fànn boobu. duñu nangu quand même ku ñëw rek comme ça dal suñu kaw euh, mu yombee noonu kooku moom mënul nekk. loolu yëpp du dara ndax euh, li xew moom kenn mënu ko arrêté. wax ko mu leer nañ. liñ ci gën a seetlu mooy attaque attaque attaque attaque. nañuy wax dëgg te yem ci ku mënul wax dëgg nag na nga maanu. nee nañu Ousmane Sonko nag moom mi waxam dafa kii ah ñun de Casamance quand c'est on dit c'est vert quand c'est on dit c'est bleu et notre projet politique Macky Sall tuuti na ci pour arrêter ko.